salaam gars yi maa ngi leen di béggee yéen ñëpp ku ci nekk seen tur ak seen ab sant waa ah, ñu ngi en direct actuellement live TikTok wax ci situation équipe nationale Sénégal Aliou Cissé coow li jug xibaar gi Aliou nekkatul coach Sénégal ou yooyu yëpp dañ ci juglu xam ngeen xel que ne annoncé woon naa leen ko ay semaine ci ginnaaw du lu bees mu ngi noonee mais may xaar gaa yi gën a dugg. ñu mat au moins quatre cent personne comme ni ñu ko tàmm defee léegi sax six cent la ñuy mat commencé nag suñuy live moom TikTok day dem ba ay mill deux mille mille quatre cent mille sept cent ñu xaar gars yi dugg carrément mu ngi noonee maa ngi leen di béggee ñëpp di leen béggee di leen jox seen wàccuwaay waxoon nga ko de Pa Assane mais ah loolu moom ay biti la fanaan quoi <laughs> parfois daa am ñoo xam dañuy siisu quoi le fait que booy bi ay kii influenceur sportif bi moom nan la mën a génnee euh, benn xibaar nii ñu mu koy gëm mais xoolal tey jii ñoom ñëpp ku ne ngi génnee di di di relayer di tàggee tey kenn xalaatuma cee tagge te ñoom ñëpp ñu ngi may siiwar gis nañ ko ci sama compte ab média bu mag rek xaw ma Sud Quotidien la xaw lu mu doon noonu ah euh, média bu mag Sud Quotidien la su ma juumul dugal ko rek ñoom ñu relayer ku ne ku ne di tagge Sud Quotidien ku ne ku ne te da la bu doon influenceur sportif français moo ko dugaloon. léegi léegi ñu ne Aliou Cissé n'est plus sélectionneur sport euh, de l'équipe nationale du Sénégal euh, source c'est influenceur sportif français qui se nomme Taradada mais s'il s'agit d'un Sénégalais influenceur sportif sénégalais boy bi pass et tout sénégalais ba nga koy suivre bëgg ko am na ñoo xam dañuy siisu nag ba mu génnee élève information maa ngi gis ñenn ñu ne dañuy contredire noonu yenn journalistes yi ne dañuy protéger Augustin Senghor nag waaye c'est sûr ah mooy loolu am yenn journaliste sportif yoo xam ne dañ leen di neexal pour ñuy protéger di protéger fédération sénégalaise de football bi et mooy loolu mooy waral nag yenn ba information boo génnee arrangé bu fédération bi rek dañuy jéem a contredire maa ngi gis jamono yi la ñuy titre ci ministre des sports bi ci yenn décisions yi muy jël di di di di génnee di génnee euh, yenn décisions yi muy jël di ko inversé quoi di jaxasee jaxase lëndëmal xelu sénégalais alors que demeewul noonu dañ ciy wax lépp demeewul noonu. léegi nag man mi génn di leeral lépp di joxoñ baaram tuuma amuma kenn ci ku may sukkandiku ragaluma kenn ragaluma kenn ndaddom da jéem nañ ma corrompre sax façon bu ne ci yenn ñu doon jiite fii Sénégal ci wàllu yenn mënoo comprendre ci wàllu sport rek yooyu foofu façon bu ne def noonu ma lànk ba dëdd ci suuf ne leen man actuellement njëriñum Sénégal la moo ëppal importance sport Sénégal jëm ci kanam mais pas ay magu yeeg njuuj njaaj doxuma ci loolu man ab lébu laa je les ethnies mais man bañkat laa man duma topp ci ginnaaw nit di ko ragal ay mbaggam wala di ko ragal loo xam ne defu ko mm, je le fais pas mu ngi ne te Sénégal loolu dafay bëri dañuy gis ku ne rek foog ne ni kii mën nañ koo këf influencer ko teg ko ci non ñun moom actuellement na yoon bi tegu rang yi tegu ci temps bi rek buñ jugee ci Aliou Cissé fédération bi président des clubs yi ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñu nar a sonal rek nag ñoo koy votel à chaque fois ñoo koy votel ñoom leen ñaan te yàlla rek tax. bu leen xaalis bu leen dara daraja jaral ngeen di jaay seen ngor ëllëg yow man xam da ngeen di jàkkaarloog seen borom nan ngeen yore woon seen réew poste ñu leen joxoon nan ngeen ko doon gérer mais ku ci dem di gëm naa di nga am gàcce àdduna ak sunu kanam di ngeen gis lépp du n'importe quoi magu yi dafa bëri ci sport sénégalais ñun non seulement amuñu politique sportive ba pare yenn dirigeants yi jëre football bi ak sport bi ah mais kenn xamul non mais ñu bëri maîtriser wuñu foofu sax sa sport li jëntiwuñu ko hôtel 5 étoiles xàppi non stress yooyu la ñuy dund mais lijjantiwuñu avancement sport sénégalais wala football sénégalais si ñenn ñu ko jiite surtout football sénégalais bi maîtriser wuñu sax football man xam naa ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi si biir fédération bi xamuñu football maîtriser wuñu ko xamuñu sax am na équipe yu bëri yoo xam ne xamuñu kii ban joueur joueur sénégalais bi fa la nekk fa la nekk xamuñu ko wax jee fi nekk nii rek mooy loolu léegi nag ci information jëmee ci kooku di Aliou la fois passée annoncé woon naa leen ko fédération sénégalaise de football dañ ko bëggoon prolonger avant contrat bi di jeex xam nga le 30 30 septembre 30 euh, août la la contrat bi jeex ci noonu nag fédération bi bëggoon a teg ruumalaat forlonger ko contrat ministre bi dëgg ci tànk ministre des sports madame Khady Diène Gaye la dame ne leen kii duñ ko prolonger contrat nag gisuñu résultat boo xam ne nii bu positif la ci durant les deux dernières années ci compétition internationale yi mais c'est clair et net coupe du monde bi ñu dem huitième de finale lañ génnee malgré Angleterre lañ dajanteel mais da ngay seetaan match bi nga xam ne nous avons danoo danoo ragaloon Angleterre géntew jëluñu suñu responsabilité donc coach très limité bu ñu demee ba gis Maroc dem demi-finale te ñu ëpp effectif Maroc loolu Jomaas dañoo ñib mu ne frère mon frère Aliou mais arrête arrête def nga fi lu ne jëlal nga ñu Coupe d'Afrique mosuñu koo jël. mais à un moment da ngay xam say limite nga dem bàyyi sa beneen moroom sa beneen frère jël relève bi bu ko defee yow sa way day rafet du ma sa ñaaw mais actuellement boo continuer nar nga ñaawal sa way nag t'as atteint tes limites et c'est clair et net Aliou a atteint ses limites il peut plus continuer avec l'équipe nationale Sénégal avec des bons résultats waaw ah c'est c'est clair et net nit am na fu muy toll dafay atteindre limite doonal coach bi gën a mag ci coach yi Jürgen Klopp ba mu demee benn moment lu jël Liverpool lu ne mu demee benn moment xam dem ba si biir xam na ni kii mënatul yóbbu Liverpool fu sori wala même bu doo ko yóbbu lam doon am dootu ko amati mu rocceeku nànk bàyyi Armstrong ñëw actuellement leeralaat équipe bi rajeunir équipe bi indi ci fraîcheur ak ñoom seen kon nag loolu c'est quelque chose boo xam ne nii vraiment lu africain yeeg noir yi war a bàyyi xel bañ di jël nguur ak a ñiit lu ne nga def kon ngir laan nguur loolu maanaam moo ñu retardé ñun ñun les noirs les africains on peut dire noirs américains yi sax son sont nag fañ yaroo la mais ñun fii suñu vision suñu gis-gis dafay dafa gàtt ñun dañoo bëgg maanaam di nekk ci nguur di ko ñiit di ko ñiit di ko ñiit ba ba ñuy tulli Aliou Cissé tulli ñu koy tulli nii waru ko fi woon fekk te yi benn premier point bi laa tegoon que ni fédération sénégalaise de football si paasam yaa nga koo wax yaa nga mais c'est ça gars yi moom dañuy siis moom fédération sénégalaise de football. Euh, kooku di euh, ministre des sports bi daf ne demande nationale aussi sénégalais yëpp ñoom ñoo bëgg Aliou Cissé jóge fi moo tax ñoom ñu gën a rey xar seen tàngu tubéy pour gën fee jëlee kooku di Aliou Cissé waaye bu ko fi jëlee kan lañ fiy teg benn sélectionneur sénégalais ñoom loolu lañ bëgg surement Pape Thiaw mooy doon coach intérim bi maanaam durant ñu ut coach moom moo fay nekk gum pour pour en bu Aliou Cissé jógee bu jógee jógee ko dàqe définitivement wala bu demee définitivement Pape Thiaw mooy doon coach intérim bi sûrement mooy ka maanaam durée bi provisoire lay doon rek durée bi nga xam ne ñu ngi war coach moom moo fay nekk bu ñu gisee coach ñu mu dem wala mu doon adjoint coach boobu ñëw wala soit moom mu toog fa continuer mu ngi noone yaa Habib Beye yaa Omar Daf et tant d'autres Hervé Renard et amul club amul équipe nationale amul dara mu ngi noonee candidats yu bëri nañ bëri nañ bëri nañ mu ngi noonee jotoon na nga fi annoncé bu yàgg yàgg yàgg que ni actuellement Aliou Cissé contrat am jeex na depuis 30 août te nangu ñu ko prolongé te bu ñu prolongé le contrat am sans contrat lay équipe nationale Sénégal foofu moom il va pas toucher de salaire léegi nag dañuy jéem def li amoon ci salaire ak équipe nationale Sénégal ministère lépp lañ koy jéem a fay mu passé à mu ngi noonee Aliou dem sénégalais yi dem ñëpp noppalu et ñu xool leneen lu bees soo xam ne dañu mën a jàppale te del xool nag Aliou bu fi jógee del xool yéen dina am yenn sénégalais yu génn naan ah yéen ko fi dàq di ko xalab Aliou si lu ne def na ko fi ah ngeen ñëw fàtte démb kenn fàttewul démb. à un moment da ngay toll foo xam ne nii da ngay xam football amul sentimental football ba si ñenn ñi nga xam ne sentiment la ñuy doxee duggee rek ah euh, dafay soxe football bi football amul sentiment Jürgen Klopp lu ne def na ko Liverpool ba dem jotee dafa dem. te lu ne supporter yàq nañ ko Ancelotti ba mu defee lu neen Real Madrid dem ba commencé fóote dañ ko dafa dem xam na ni dekkatul ci temps mu defarwaat ñëwaat Zidane ba mu ciy toll di toj jël ay Ligue des champions tegle ko ah dem ba benn moment mënatul sax dóor équipe yu ndaw dafa dem ba muy teel actuellement ba léegi coachégul et tant d'autres coach yoo xam ne xam nañ leen ci football mondial doon ay grand coach bañ ñëwee ba xam ne ne atteindre nañ seen limite ci équipe bañ nekk noonu la club boobu dañoo dem teel tubaab bi amuñu sentiment looloo tax ñoom ñuy évoluer di gën di jël ay trophée di dem Real mu ngi nii di jël trophée ba léegi ah man waxante dëgg qu'on se dise vérité ñun nag buñ bëggee jël trophée yi di continuer dañuy fàtte trophée bañ jëloon buñ ko xalaatee rek maanaam dañuy yërëm sa waay ba lan war wax wala di ñu war a jël duñ ko jël sénégale loolu mooy loolu moo ñu ne del xool dina am yenn yenn sut xale jigéen ñi ak yenn ñi nga xam ne góor yoo xam ne dañoo sentimental naan non yéen da ngeen a mën a fàtte démb Aliou Cissé li fi jot a def lépp tey ngeen ñëw di ko dàq dàquñu ko dafa jot dem doom dafa jot dem mu war a dem contrat moo jeex mu war a dem dem yoonam léegi nag teewut dinañ ko remercier ca lam ñu defal nag mooy premier coach bi ñu indil Coupe d'Afrique des ci suñu histoire yooyu mbégte 6 février duñ ko mës a fàtte bi ilaa mi déet yóbbu ñu coupe du monde deux fois mais loolu teewut bu waree dem dafay dem man dama koy remercier bu baax a baax le coach le sélectionneur Aliou Cissé mu ngi noonee mais oui Paasan c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça hmm, yi dafa bëri ñu sentimental waaye ñu si bëri xamuñu football ba ma partie bi moom mooy loolu majeure partie bi moom xam naa ni <laughs> naar bee leen dugal ci football bi quoi. ak yenn xale jigéen ñi ndeysaan ñoom ñoo ñoo sentimental quoi ñoom moom parfois dañuy rey mooy loolu je préfère Omar Daf ok Omar Daf ah même Habib ah. Mhm.